nuyu leen tàmbali xibaar yi ci bopp bi ak li nu ci jàpp bokk na ci ku ci nekk kañu ne dinaa woon moromam ne mu këpp mbooloo mouvement du 23 juin joxe daje ci place obélisque boori Colobane ñi ànd ak maître Abdoulaye Wade di AST joxe ndaje ci VDN bi fii ngir xam ne ñoom it euh, kenn du dem ñu des ci wàllu mbooloo wàllu place obélisque boobu mois di 23 juin bëgg a daje euh, ki nga xamante ni moom moo di Jean Paul Dias ne daal su sañoon place ba ñu ci ko jàpp di place d'indépendance mu kenn du ko daal di toxal euh, mboo muy wootee bu beneen ne ñu gën a yaatal waxtaan wi bu ko defee ñëpp mën ci gën a manko li tax ñu jóg nag moom mooy maître Abdoulaye Wade mënta doon candidat ci wote yi di ñëw waaye tam dog-dog yi ne nii ci yenn maire yeeg yenn communauté rurales yi ànduñu ci waa parti démocratique sénégalais di wax ni gàtt gàtt ñu ngi séenu million ci doomu aadama yu war a ñëw teewal si leen ci bësëb seen bësëb tey jii ndax bësu xas la bësu wane seen bopp la daan ci ñëw ak yéen ndax am nay ndaw yoo xamante ni dañ wax ne li ci biir diwaan duñu bàyyi benn kaar Ndiaga Ndiaye di yeb benn militant jëmale ko fii ci Dakar yu ngir sotti si ko fi fekk na ca njaari moom préfet ba aay na toogaanum ñaxtu gi ñu bëggoon a amal ñoom waa mouvement du 23 juin duñu bàyyi ginnaaw it bokk yi diggante Sénégal ak Mauritanie bunt ubbeekuwaat na ndax dem bay dikk bi tax koon a neex ah, fan yi waaye kii daal sàndoy bu CNTS dem na am na nañu mu giseel ba loolu ni féeti na boor daan ci ñëw ak yéen ñëw yéen ci lu soxal mbirum Hissène Habré ak it ah, waa Tchad mu fekk baax ne noonu nañ ko yóbbu Belgique ngir wat koo atte gulit lu mel noonu soog a ne noonu sax bind nañu ngir euh, waa Union africaine ak waa Sénégal xam loolu ne moom mooy seen bëgg-bëgg ca Norvège moom njombay fa am benn attentat juróom-ñett fukki nit ak ñàkk ci seen bakkan daal ñoo génn bokk it ci wàllu tàggat yaram. kon ñu nuyu leen door xibaar yi ni ñu leen koy waxee ak lu soxal mbirum euh, toogaanu ak ndaje yi war a am tey. bi ci njëkk fii ci place obélisque ci suba gi lay doon mouvement du 23 juin moo fa woote mbooloo ngir xamle ne benn bëggoonu maître Abdoulaye Wade nekk candidat ñaari dog-dog yi ñu indi ci maire yi communauté rurale bëgg ñu daal di koy dakkal ba tey jii nee nañu bëgg nañu mu xumb bu baax a baax démb buñ doon def waajtaay wu mujj yi wane nañ xumbel gi nu bëgg alaaj Malick Ndiaye. ci yëglu bi ñu bëgg a amal tey ci samedi ji mouvement M23 in nañ ci lu yees ak hymne bu bees. mois juin nag bëgg nañ maanaam am mbooloo mu takkoo takk ca place de l'obélisque ñu ngi oo nit ñi ñu teel ñëw loolu nag ci fajar gi nag toog faak ñoom su ko defee rek ñaxtu li nga xam moo leen métti waaye nag lépp noppi nag ci wax loolu moo di Zahra Iyane Thiam bi nga xam ne bokk na ci comité d'organisation bi manifestation samedi bi moom lépp noppi na ndax du manifestation boo xam ne tey lañ ko door wala semaine na semaine biñ ko dooree manifestation bi commencé na lu jiitu loolu ba ñuy njëkk manifester c'était lors du 23 juin bi nga xam ne président dafa bëggoon instituer ticket présidentiel bi fi mu ne nii boobu ba léegi askan wi yëpp a ngi temm taxaw ngir ñu bañati jalgati li nga xam ne mooy suñu sartu réew mi nga xam ne ñun ñëpp ko bokk kon mën nañu wax ne yëpp yemb na et li bees ci mouvement du 23 juin bi mooy même artistes yi ku ci mel ni Awadi gis nañ jéego yu am solo yu yim ci liggéey. amoon nekkul da dañuy sàkku jàmm te tamit place de l'Obélisque moom mooy euh, symboliser li nga xam ne rek moom mooy indépendance Ousmane Tanor mu foofu nee na li nga xam ne rek moom mooy bés boobu nag ñu oo ñëpp su ko defee ñëw teew fa su ko defee rek ñu wane li ñu naqari ki nga xam ne nag moom moo nekk président d'honneur bu pays di Amath Dansokho nee na nag jafe-jafe ñu am Sénégal yëpp du kenn ku Abdoulaye Wade moom nag il faut def maanaam ñu continuer pression bi ba mu dem abal ñu ñu jàpp ne kii di Cheikh Tidiane Gadio ak Landing Savané ñoom kàddu yi ni mel dañu yëkkati Malick Ndiaye kon ah, fii di place Obélisque incha ci la waa mouvement du 23 juin joxente ndaje ak seen ñooñ ñi kon nañ ko jàpp nag place de l'indépendance waaye xam ngeen ah, am na aaye bu jaar ci diggante bi bàyyi ko ci Ousmane Ngom doon wax ne daal am nañ bërëb yoo xam ne moom dañ koy aaye képp loo xam ne da nga am ah, dajem politique nga ko fay mën a defee bokkoon na ci place de l'indépendance boobu loolu nag Jean Paul Diaz moom andu ci BCG nekk neen daal ginnaaw dem nañ ba lii am maanaam bu ndox tuuro an baq des da ciy daal di ànd waaye nag su sañoon ñu dem place de l'indépendance danga ko jaral sax ndaje mi du am nañu ko bëggee ñu déglu ko moom Jean Paul Diaz. non wax naa ko tey ci suba dama ko wax Aliou Alioune di ko remercier d'ailleurs ci appel bu mu lancé woon pour ñu réunir euh, et qu'on constitue la lutte pour protéger la constitution maa ngi ko ciy remercier mais man dama nekk nit koo xamee lu ma xalaat dama koy wax te comme wax naa ko ko man ak moom ak ñenn ñi ma ñëw wax ko devant tout le monde. d'accord ñu lu ñu jëlee manifestation bi place de l'indépendance indi ko fii mais nag on se soumet que léegi loolu mooy consensus bi mais dañu ne bu mu amati parce que bu ñuy décider yu mel nii nañu fexe majorité bi toog ñu décider ko te bu ñu dellu gannaaw ak lu mu ñu mën ci jàll parce que le but du jeu dem di xeex ak policiers yi parce que policiers yi suñu ay doom lañu suñu ay jarbaat lañu n'est-ce pas mais le but du jeu mooy marquer suñu présence au cœur de Dakar nest pas pour que international bi mun ko gis xam ne fii kat am na lu fi xew xam ngeen ne quand l'international se rend compte que am na fii lu fi xew mais ci ngeen di gis États-Unis di jug France di jug keneen ak keneen di jug mais bu fekkente ne ñëw nañu def meeting ñëpp tàccu ñëw wax et cetera mais moom day jël day jël ay image d'abord de filmer lu manifestation ba pare jël ay image yoo xamante yu ay manifestation passé mu greffé ko ci wax tamit ne dañ koy médalee fii ak mu dem daal. lu ma xalaat la ndax ci jàmm jàmm la ñu bëgg nañu ko may délai nañu ko ñaan ñi mën a wax ak moom nañ ko wax ba su korité bu demee julli ba pare mu baalu peuple sénégalais ndax moo leen tooñ n'est-ce baalu ak ñëpp n'est-ce dellu ci yàlla aussi ba pare nag wax peuple bi que comme léegi xëccoo bi lii la buggu ma nekk candidat mais dootuma nekk candidat ba pare bind ko yónni ko conseil constitutionnel nekkoon Jean Paul Diaz moom ndaw mu mat 23 juin ñoom ne nañu yëngu bu baax ba ñu xam ko rawatina ñii di waa PDS ak ñuy bëgg góorgóor indi dugal ci ay njaganjaay benn njaganjaay bu yëpp benn militant duñ ko bàyyi mu jóge kees ñim jëm si fii ci Ndakaaru moom lañ wax ne nu maître Ousmane Ngom na able Cheikh Tidiane Sy na able ci gouvernement bi Pape Amadou Sall mooy coordonnateur mouvement euh, M23 ñu déglu ko ci micro Fatma Ram Diouf. Abdoulaye bu bëggee. ne dafa bëgg a wane ni peuple bi mu ngi ànd ak moom te la mu am ci Sénégal yépp la bëgg jël xaalis bi nga xam ne sunuy lempo la di ko kasar kasaree ji fukki at ak benn yi mu toog ci bopp réew mi di ko def ci caaxaan yooyu pour biral àddina bi ak ñu nekk bitim réew que nit ñi ñu ngi ànd ak moom mais bu fekkee ne dafa bëgg a jël loolu dajale ñooñu ñëpp Dakar pour wane ni nit ñi moom lañu ñu àndal dañu jàpp ni borom kaar yi nga xam ni seen outil de travail la seen liggéey seen liggéeyukaay la waruñu ñàkk fayda ba yu tekkiwul dara yéen leen tey fay mu war leen a mën a jaral seen outil de travail ñun lañuy def rek mooy na respecter les règles du jeu bu ko tegee ci yoon maanaam ñun dañ ko dompet nañu dompet buñ ko raayee mu raay ñu waaye bu fekkee ni dañoo yore revolver mu bëgg a génn kanu bu boobaa duñ ko seetaan moo tax ñu ne ñi nga xamante ni dañu bëgg jaar fi mobiliser :fra ay nit jële ko fu ne ci Sénégal pour :fra dem tuuri ko Dakar wane ne Dakar yow réew mi moom la ñu àndal loolu lañu wax ni d' :fra ci tey d' :fra accord :fra duñ ci ëllëg te en :fra tout :fra cas :fra yàlla def na ni ñun ñoo am chance dëkk Thiès muy dëkku carrefour :fra boo xamante ni kuy dem ndakaaru fi ngay jaar li ci ëpp bokk jàpp nañ li fiy jaare bu fekkee ni ca ñoom la ñu bokk ñun danañ jël suñuy matuwaay ba mu mat danañu ko gàllankoor ba du ñu teree ji Ndakaaru waa Diamniadio ñu ngi leen di xaar te ña fa rëcc également :fra jëm Ndakaaru nañu compter :fra leen barrer la :fra du ñu nitu violence lépp lu yee fitna ak ay bokkuñu ci dañu ne tiitaange gi nga xam ni moo leen animé duñu ñu nangu mu jóge ci seen biir fii ak lay Wade daanuwul donc la c'est il faut mu leer ci bopp nit ñi ni woote violence waaye ku ñu ci wooy duñu ko daw. ci wàll woowu ca njaareem ñoom waa mouvement du 23 juin bëggoon nañu euh, def seen toogaanu ñaxtu wane seen bopp ci buntu makkaanu rado di yëngu ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama waaye nag préfet génne na dogal. nee na du ci dal du ci dal ëllëg Adama Ndiaye. sikkimu bi mouvement ma 23 waroon def ci buntu rado di kuréel gi nga xamante ne moo taxaw ngir xeex ak ak yelleefu doomu aadama préfet bu Diourbel def ko aaye kilifa googu nag dafa génne ab bataaxal bu leen di aaye li ni mel moom nag nee na kenn yëgalu ko dara looloo waral li ni mel du ko mën nangu benn yoon ndaje moomu nag la ko taxoon jóg rek mooy fexe lankaare li nga xamante ne mooy ñetteelu mandat wu maître ak it ñaan ministre de l'intérieur mu yokk bés bi ñu waroon tëj mbindu ci liste électorale yi organisateurs yi ne gis nañ aaye boobu ca yi nag ab toogaanu sikkimu dinañ ko def ci wetu ten seega ci route nationale numéro 3 bu juróom benni waxtu jotee ci ngoon responsable mu M23 dañoo takk rajo dugg ci koñu bambe yi di ñaax nit ñi ngir ñu bañ dem Ndakaaru Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye jërëjëf ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa parti démocratique sénégalais li ñu jubloo ci mbir mi moom mooy million ci doomu aadama lu bëgg gàtt gàtt ñu teew fii ci VDN bi nee nañu tam dégg-dégg moom ak seetaan. kenn du ko mën a joytu fii ndax daan def ay haut yu rëy rëy wàllu ceetaan mi daan jël ay yu xarale yoo xamante ni foo ay mën ne dina ko mën a gis dara du ko ci ump ñu déglu ci Babacar Gaye jokkoom ak Pape Diome Thiaré. Euh, gis nga ci xayma euh, li nga xam ne mën naa fëkk nopp ba xam ne Sénégal foo toll dañuy dégg wut nañ ko ngir kàddu gi président di yëkkati fépp fu nekk ci Ndakaaru di ko dégg loolu moom réglé nañ ko ba pare bi ci des mooy fi ñu koy defee barab ba mucc na ayib ci kell mucc na ayib ci sécurité danañ ko def ci jàmm bugguñu histoire. danañ ko def ci dal ndax loolu ñun ñoo yor réew mi danañ ko def ci wane li nga xam ne moom la ñu toll ñun daal dañu mën bu ko def ne ko si ñu ñu wan la nañu toll ci yow. parce que nag Sénégal nag dëgg dëgg nag boo génnee parti démocratique sénégalais génne parti yi nga xam ne ñoom la àndal muy ay ñoom URD parti la réforme ak parti nekk CAP 21 AJ la cay des. tàngi xool yi nga xam ne dañ nekkoon ak Abdoulaye di tàggoog moom rek ñoo fi des. loolu moo tax ngeen mobiliser lu tolloog euh, cinquante mille watt. cinquante mat wër yi mooy pour ñu dégg ñu la waaye nit ñi moom bëgg nañ ñu man million ndax dafa jot nag pour comme dañu toll ci jamonoy waat ñun PDS ñoo bëgg a waat wan ab Wade ne ko nag gàcce ngaalama fan ñu digoon andi nga ñu fa dañ bugg nag continuer ak yow ba ca fa ca des nga xam ne moom la ñuy séntu. yéen ngeen ne euh, maanaam euh, li ngeen fi def lu euh, bëri dañoo war a wax ne gongo parce que réalisation yi nit ñi mën a teg seen gët la lan moo tax ngeen yaakaar ne nag war ngeen mën a mobiliser seen doole ngir won ko askan wi. loolu li ko indi Pape Diomaye mooy dañoo defa defa def danoo liggéey liggéey ñi nga xam ne wax ak diigat mooy seen métier mooy ñi yoragul nguur gi te responsable luñ dara. lu ñu wax ñu yàq ko taxaw ci suuf mais pour ñu won sénégalais yi ne li ëpp ci réew mi am nañ mbégte ci Abdoulaye li mu def donte nag am na ay tolof tolof mun te ñàkk yàlla mi nga xam ne moom man lépp lu baax lépp lu jekk lépp lu mat defagu ko fi moom rek moo ko man mais defagu ko nag ñun PDS mënaguñu ko loolu waaye il faut ñu wan ñi nga xam ne ñoo ñuy diingat ne li ëpp ci askan wi ñun la ñu àndal. ku ci nekk xas na waa mouvement du 23 juin ñoom tamit nee nañu bés bi bés bu am solo la ci ñoom kon seen mbooloo daa war a takku ci kanam njiitu réew mi ba mu xam ne lii nu koy wax bëgg na mu mu mu mu mu jëm ko bañ a def muy bu mu doon candidat waaye itam découpage administratif bi mu dellu ci ginnaaw ñu déglu ci Ousmane Tanor Dieng. bës bu am solo la ci ñun ndax ab Ablaye Wade dafay def euh, moom euh, ndaje ak euh, ñooñam fële ci voie de dégagement nord am na kenn sax ci chef de parti yu wax ne ah ñun suñu li suñ tànneef moo gën parce que ñun fi ñu tànn mooy place de l'Obélisque di place de la nation di place de di doon place l'indépendance parce que suñu symbole indépendance mooy mooy monument boobu mooy obélisque bi te ci ci foofu boulevard général de Gaulle foofu la ñuy défi défilé tandis que Ablaye waat moom fi mu fi mu jël moo ñu mu ngi muy muy VDN mooy voie de dégagement ñu ngi ko bëgg a dégager moom mu jël voie de dégagement donc jàpp naa ne ah mel na ni yàlla mooy bëgg a wone yoon wi nga xam ne fi lay Ablaye Wade di jaar pour dem mais nag ñooy am na solo pour ñun pour que nit ñi bare woon le 23 juin ci euh, place Soweto ñu ëpp ko encore ci. Euh, fi nga xam ne fi lañ nar a dajee mooy place de l'obélisque loo tax ñu ne ñëpp suba à partir de 9 heure na ñëw place de l'obélisque bàyyi seen soxla yëpp ñoo woon Ablaye Wade ne ko euh, askan wi d'accorduñ ci nga présenté waat nga am ñetteeli mandat que ñaari mandat yi nga am doy na yow yaa waxoon ne ñaari mandat ngay am bloqué nga ko ci ñaar léegi nag sa wax waxeet boobu ñun d'accorduñ ci mu nekkoon kii di Ousmane Tanor Dieng moom ak Babacar Gueye mi ngi dégg léegi bu ci kanamee ci ñaaru xaal dañ leen déglu ci lu gën a yaatu ñoo nar nekk gan yi kër gi ci waa kër PDS nag moom coow am na ci coowal xaalis ndax nee na nu dañuy dañ leen jox ay million ngir ñu góorgóor nit ñi indi leen fii eh, ci wedeen bi waaye nag fu ci mel ni golf moom ah, mbir da caa bi ndax kii di soxna Fatou Miss Aïdara di député moom la ñan di di di nga nee daal. na ko séddale la bukki ay jegeñaaleem ak soppeem la jox xaalis bi ba tax na am na ñoo xamante ni ñoom nee na nu na mu doxal du noonu te it ñu ngi koy yëgal parti bi mer na nu daal di ko nanu ci ak yéen suñu xibaar yi ñu génn ba tey ci wàllu xibaar ñu wax ñu ci leneen. ndax du ñaar xew-xew yu rek fay am mu soxal mbirum dem ba dikk bi diggante Sénégal ak Mauritanie fan yi amoon na jafe-jafe waaye kii di Alassane Ndoye bu CNTS nee na ubbi bunt bi dem beeg dikk bi léegi yëf yi af na ku neex dem ku neex dikk lañ doon jàmbat saafarawu na ginnaaw ba mu fa demee la xam ne loolu Moussa Omar yi ñi nga xam ni ñoom ñooy dawalkatu daamaru tukki yi ak daamar yi nga xam ne dañuy yëpp ay marchandises fekk nag ñoom dañu amoon ay jafe-jafe depuis ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ba la génn ak negeni fii ñi nga xam ne ñoom ñoo doon yëpp ay tukkikat bu ñu yegsee ba ci dañ koy yebbi ñi nga xam ne dañ doon ay marchandises bu ñu foofu dañ koy yebbi loolu itam di am fa li nga xam ni moom mooy ci wàllu Mauritanie bi loolu nag li ko waral moom mooy jàppante yi nga xam ni dafa dikkoon ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu daamaru tukki yi ci noonu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo ngànk nguuru Sénégal ak Mauritanie Mauritanie gannaaw bi ñu ci waxtaanee bu daal di ci am saafara daal nañu nag yebal kii di Alassane Ndoye mu dikk waxtaan nag ñi nga xam ne ñoom ñooy transporteur routier yi nekk ci bët gànnaaru réew mi ndaje moomu doon am ci Rosso Sénégal kii di Alassane Ndoye xamle na ni kat jafe-jafe yi daal di ne féete ginnaaw fi mu nekk nii nag li ñu bëgg moom mooy jàmm daal di wéy di am ci li nga xam ne moom mooy demle bi ak dikk bi diggante Sénégal ak Mauritanie Alassane Ndoye moom mooy secrétaire général fédération transporteur yi nekk ci Sénégal président de la Rosso te mbir moom mu xew Rosso dañu wax ni am nga si tuuti man-man li tax ñu wax kayit dañu wax ni fu mu mosaan am si sous-région yi ñu wër dégg nañu fa sa kàddu ma bëgg nag nga demal ma fa noonu nga ko daan réglé si frontières yi yëpp nga dem nga réglé ma ko te mu gaaw nag ah, ma jàpp nag ni li tax mu wax ma ko li wolof yi wax naan mag dana toog di di lu ndaw mu taxaw séenul loolu moo tax ma ñaaw njortu si ni bu ñu ko yeexee xëj na li tax mu wax loolu mën naa am te lu waaye di wut jàmm la ngay wut da nga ko bàyyi wuti jàmm secrétaire général syndicat régional transporteur routier yi nekk ci ndar mi ngi xam le ni kat ñoom fi mu nekk ñu ngi ñaan audience jëmale ko ci njiitu réew mi Maître Abdoulaye Wade ndaxte kat ñoom seetlu nañu saa ne bu fekkente ni dalal nañ leen wala déglu nañ leen dafa fekk jafe-jafe am ci wàllu lii di transport bi di fàttali waxtaan woowu biñ koy amal def nañ ko ci teewaayal ki di colonel Oumar Diallo direction des douanes ci axe nord Saint-Louis Louga ak Matam mu ñu daal jàppale a baax réew mi ak seeni ñooñ yi nekk fële ca Mauritanie Moussa Omar Gueye Saint-Louis Sud FM xibaaru bitim réew ak laal sax Sénégal ndax Tchad euh, jëriñam ci ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu jëflanteeg bitim réew moom neen daal Sénégal mbirum Hissène Habré la bëgg mu daal di koy lijjanti moom mooy mu daal di koy fadong yëpp ci avion yóbbu Belgique ngir ñu war ko mën a a ah, jëriñ jooju xam le bind nañu Sénégal bind nañ tam Union africaine ngir ñu xam lan bëgg ngir ñu war ko mën a atte moom Hissène Habré ñu fàttali ni Hissène Habré fi mu nii mi ngi fii ci réew mi daanaka ci ñaar fukkeelu atam ak benn dañ ko topp nag ay ñaawteef yu bare bari yu ne def na ko cam réewam ci jamono ba mu nekkee ca bopp ca Norvège foofee njombe faam ah, ndaxte benn bomb moo fa tàkk eh, ci wetu makkaanu nguur ga sax ne nañu sax bureau premier ministre ba yëf yi eh, fenêtre yëpp daal di tëb moom nag gaañuwu ci eh, ak te koo xamante ni dafa yor ngànnaay ci benn dun bu ñu wax utoya daal di fay soq ay sox ba faat lu toll ci daanaka juróom-ñett fukki doomu aadama ba ñu xoolee daal juróom-ñett fukki nit ak juróom-ñaar ñàkk nañ seen bakkan ci ñaari mbir yooyu lee ah, kañu tuumaal ne moom la nag teg nañ ko loxo waaye nee na moom ah, ci ñi nga xamante ni seen doot lañ bokk soppul dara wàllu diine lislaam ah, teg nañ ko loxo dem nañ sax këram jëm gëstu ba xam ay ngànnaay ak yooyu ak lu tax moom mu jëfe lu mel noonu bokk yi nag tuut ñoo génn ci wàllu tàggat yaram wàllu tàggat yaram ak it euh, benn festival boo xamante ni footballkatu tànk yi euh, ñoom ñoo ko doon amal ca euh, Ndar muy war a tàmbali tam ci njeextal ay bés lay doon lu toll ci ñaar téeméer ci ñoom am juróom-benn jàpp fukki ak ñaar ñoo ci bokk Boubacar Tamba lañ ci jokkool. Goulet ñu amal fii ci Ndar festival jeune footballeur te direction technique régionale bu ndax amal ko ci lëkkaloom ak ligue de football ñuy waajal li nga xamante ne moom mooy final régional yi kii di Abdoul Aziz Wade moom mooy directeur technique régional bu Ndar. li ñu def li nii rafetlu nañ ko ndaxte stage bi ñu demoon ci Thiès euh, ci FIFA bi ñoom dañu ne woon war nañu jox euh, gëdd football bi ci xale yi li ko joore ci juróom benn at ak fukki at ak ñaar ni football am na am na am nañu sens football gis nañ ni wane nañ ni ñoom bëgg nañ ko te ñu ngi koy war nañ ko mën pratiquer loolu moo taxoon daal football bi xam nañ ci âge boobu daal kenn nemmeeku leen daal ci football bon nag ñu bugg leen ci boole ñu ñu ñu bokk ci ci ci football ñu ñëpp ñu xam ka daal. ndax euh, li ni mel euh, tey la yem wala ngeen di continuer. waaw dañ koy continuer ndax ci vacances yi incha allah bu nawetaan yi commencé comme ñu euh, ñoom la ñu loolu la ñuy di xaar daañu dem ci zone bu nekk. Euh, ñi nekk ci nawetaan zone bu nekk daanaka semaine bu nekk ñu dem ci benn quartier dafa lu mel nii. bon wool xale yi li doole ci fukki juróom-ñaari at juróom-benni at bu fukki at ñu woo leen tàggal leen ci football. kii di sélectionneur national bi di Amara Traoré bokk ci ligue de football bu ndax taxaw na ci taxaw bu am solo ak jumtaayu xarañ yi nga xamante ni jëbal na ko ñii di waa direction technique régionale gaaw gi nag la ñuy amal fii ci stade de maître Babacar Seye final yi jëmale ko ci wàllu école de football yi may minime ak euh, cadet yi diber gi nag la ñu amal final junior ak senior mu war a boole AS Dagana ak AJ bu Podor li ko jiitu ñii di xalelu jigéen ñi dinañ amal seen final régional diggante lew Léona ak Bango lay doon Boubacar Tamba doon tey jokkoo fi ci ndax rajo Sud FM. Boubacar Tamba Amara Traoré mi ngi doon tudd léegi sax nekk tam entraîneur national euh, bu équipe bu Sénégal euh, wax nga ko jàpp na ci ba fi mën a sotti ñu déglu ko ci. bon donc di rafetlu lii parce que euh, dafa bokk ci politique fédération bu bees bi euh, développement petite catégorie dafa ne lu am solo donc lii ngi ñu gis tey c' est que loo xam ne direction technique direction technique nationale moo ko initié euh, Amsata Fall tey nekk fi mi ngi Accra donc maa ngi fi représenté tey donc loo xam ne Thiès lañ ñëwoon ñoom direction direction directeur technique régionaux yëpp ñëw benn stage fo on bu FIFA organisé jàng foofu indicateurs yi nga xam ne ñooy nekk ci quartier yi lañ fa defoon pour que ñoom ñu mën ko garder ci quartier yi donc je pense que noonu la ñu mën a développer foofu à la base. waaw mais dafa am yu mu laaj. waaw dafa laaj euh, ay ay jumtukaay yu bëri bëri yu am solo jumtukaay ci wàllu ne dañu jël seen temps euh, ne ñu leen mën a ñu fexe ñu leen parallèle ay euh, comment ça s'appelle ay structures yoo xam ne dañu mën a formé wu outillé wu pour di mën a euh, tàgg gën a tàggat xale yi